ren Bassirou jël ko di ko félicité di gën a yokk liggéey bi rek. xam ne yemul fii daal. alors featuring bi ngeen def mu wër àdduna à travers euh, Noweli donc succès bi naka ngeen ko dund est xaaroon ngeen ci loolu. waaw xaaroon nañ ko ci moom. <laughs> waaw parce que kin ko doon defal du artiste bu ndaw waaye Seck ñëpp xam na ni bokk na ci meilleur chanteur yi nekk Sénégal du artiste bu ndaw xaaroon nañ ko ba pare am nañ ci ay feedback retour yu positif par par rapport ak niveau par rapport ci enregistrement yi par rapport ci mixage yi en général yëgoon nañu fee euh, fierté daal ci ci leen doon def noonu. d' accord Chérifou sa Brain lan mooy euh, projet yi. waaw après ñuy waajal album ah. ñuy waajal album bientôt xam naa après euh, koor gi incha allah ñu joxe album. d' accord merci beaucoup. jaajëf Bamba. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te